tey nga nekk ci benn boîte ñëpp ràññee la fa muy seen TV nga fay liggéey liggéey bu am am solo tey seen jiit bokk ci li nga xamante moom mooy ci ñi bëgg a jël réew mi ñu gis ni ren tamit dañ koo rëkkalewaat. damaa jàpp ne dañoo tiit ci moom rek mais damay wax ne bu dee dëggee dëgg Anta Babacar bu jàllee benn bugaan la war a jàll. réew la moo xamante ni waa terminal bi ñuy def bac amuñu waa quatrième ma def candidat libre am <laughs> loolu nag jaaxal na ma lool waxi olof laa la wax. ma ne Sénégal. bu jamonoy bag jotee. ñi war a def terminal amuñu ñi def quatrième candidat libre am. war na nañoo xoolaat professeurs yi. Anta Babacar fu mu jàllee. keneen jàll keneen jàll. Bougane war na fa mën a jàllee. mais tey oustaz est-ce que nekkul ne Bougane le fait que moom à chaque fois muy wax moom euh, day xeex euh, système bii nii est-ce que nekkul ne moom tamit looloo tax saa bu bëggee samp nëndëm rek ñu jëm koo faagaagal. parce que xam nañ ne bu ñu ko mayee moyen de côté ci ak faydaam day jàll. xaarul kenn ci lenn ma ne la man mii bugaana may fay weer xaw ma biiroom musuma toog di waxtaan ak bugaan ci ay affaire politique parce que moom maanduteem toll na foofu. bugaan nit wàllu politique maandu na ci. mooy du ne la ndax doo ma jàppale. bugaan ñaata nit lay fay. bu ko neexoon mun leen kaay leen ngeen parrainé ma buñ ko parrainé ëpp nañu cent personnes ñun ëpp nañu deux cent personnes mais ba tey amul kum ci jàkkaarool bu gaan yoonam newul ci seen TV wax naa la mosuma dem bureau ñu toog mos ñu waxtaane lu dul seen euh, oustaz programme nangam man ko grand programme nangam jeex na tey kooku nag bu nekkee ci réew mu mel noonu man fee am ittee taxawal lu mel ni Sen TV mën fee am ittee taxawal lu mel ni d'accord mën fee am ittee taxawal lu mel ni jooni jooni boo ko joxee réew war na ko mën a gérer ndax ku mën a yilif ñaar fukki nit di leen fay weer mosoo dégg sénégalais mën na laa muñal lu nekk ba mu des paiement bu tardé lu mu la rus rus moom ñaari fan ñetti fan dina génn tey da ngaa mos a dégg tey kenn ku génne seen TV ni payoor a fa génne barke njool màkk bu du tardeel payooru doomu aadama balaa la quatre la cinq sa téléphone sonné sa xaalis dugg ak banque boo mën a jëlee ji yow yaa xam kooku nag bu ragalee ak seen diggante yéen ñaar dina ko sóoraale ci ñeneen ñi ndax nit melul na mu waxee na mu jëfe la mel d'accord oustaz mais aussi gis nañ ni fii amoon na fi ay euh, jamono euh, seen TV ñu bëri dañoo bàyyi ba askan bi euh, ñu bëri sa doom day seet sax ci la bàyyee keneen a keneen tamit ci noonu la bàyyee dem. xam nga loolu. Mhm. ay vie personnelle la. Mhm. man yàlla def na ni ku mën a nekk seen TV kaw ba suuf seex ma la ko fépp. may am lu ma neex ma tuddee ko doom xam ni kii Cheikh Sarr laa ko tuddee parce que li ma dimbali ci wàllum média ba ñu bari ruus ma Cheikh Sarr moo ko indi. Mhm. Cheikh moo fexe ba fréquenté wu ma nitu àdduna yi 100 pour cent seex nit ñëw na di ma fay xaalis pour ma defal ko émission mu ne ma boo ko defee day changé sa melo te nit ñi am na fuñ la teg seex kilifa woo na ma fi ni ma may naa la xaalis kaa ngi jël si ko seex ni ma boo ko demee jël yàlla na nekk tooke sa biir bi boo ko lekkee yàlla na nga tëdd feebar ndax kooku waru laa may. d'accord mais tey oustaz affinité boobu noonu yéen ñaar ngeen am ba tax na Seex Sarr loo ko ñaan mu may la ko waaye yow euh, tamit lu la ñaan nga may ko ko lan moo waral loolu parce que dëgg moo ñu boole du ñu jëwante gis nga dama wax nit ñi duma leen jëw ci kaw suuf. mooy duma ko jëw. sama jigéen la sama xarit la. te nit ku sincère la. du ma wax ci ginnaawam. Cheikh Sarr duma ko jëw du ma bàyyi nit di wax ci ginnaawam. mais du te bi mu génnee foofu wax ma ni ma raison yi tax muy génn dama ne ko am nga ci droit parce que nit dafa am sensu boppam. boo xam ni ci jëmmam la nekk moo ko moomal boppam bàyyi ko ak moom. parce que nit ku ne xam nga sa situation wërsëg na muy doxe nit ku ne xam nga li la arrangé nit bu la laajee conseil ci dara balaa nga koy tontu ne ko loo sentir ba pare li mu sentir fekk si ko ci loolu parce que boo ko waxee sa xalaat ëllëg bu juumee danaan la yaa ma ci dugal man boo nee ma ah oustaz man ka dama bëgg a jóge ci site bi dem ci site nangam man la yow noo ko gisee nga ni la sama avantage nekk dama naa la kon demal bu boo nee ma yaa moon demal man la yaa ni moon fa nga bëgg a dem mais boo nee ma demal man la toogal nga toog ñaari weer mu xaw a metti nga ni oustaz yaa ma fi dëj dootuma am lu ma la tontu moo tax bi mu demee tuuse na ma waaye mu ngi fay gis boppam mbégte la ci man. mais tey oustaz tey est doo toog jékki-jékki moom mu manqué la parce que ni ngeen meloon. am bi ñëpp bëggoon ko saa yi bu musaana toog rajo ñu jéggi oustaz si wetu ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Sarr doo jékki-jékki toog loolu manqué la. non parce que bu ma doon manqué tey day fekk ñu ñaar duñu gisee wala duñu déggante man ak moom démb ci guddi. ñoo mujjee déggante téléphone ci guddi gi tooñante à tout le temps seex amul jour léegi nii rek maa ngi jaar mbeddu këram ak sama oto di xalaat ma ne guddeew rek ci seex jaar toog nga xam ne yéen a ngi gisante yéen saa su saa su nekk doo wéet seen parce que mission yi duñ benn man am naa mission bu mu yor moom am na mission bu yor euh, dañ koy tëjee ak li nga xamante ne ni euh, euh, mun naa ne barki démb rek yaa ngi ci doon wax ak suñu ay naataango muy ba ngeen demee Oustaz mooy bi ngeen demee eh, ci benn programme yow ak sa ñooñ ki nga xamante moom mooy Oustaz Modou Fall ñu jëf leen jëf ju ñaaw jooju noonu ba tax na nga génn nakarlu loolu noonu. loolu moom doot dootuma ci waxati ndax Thierno Cheikh. ñu tuddee ko maam Cheikh Omar maamam. muy Cheikh Omar Tall bu sunu maam Thierno Bachir Tall. ci mbaaxam ci dalam. ci civilisé ci xam logique gu ci yaru lool xalifa généraux yi ci réew mi yëpp bëgg ko. jox ko cër. woo ñu ñaan ñun njekk ne ak lu ngeen mën a déggati bu leen ci waxaat bu fekkente ni sama cofeel ak yéen dëgg la bu dee cofeel googu dëgg la rek waratoo cee wax waaye li wér tóor mooy ak ku mën a génn wax man la ma waxee dëgg falaa mën a yem d'accord euh, mais tey aussi te oustaz est-ce que nekkul ni souvent da ngeen di dem foo xamante ne waroo leen fa dem ba tax na ñu leen di jéem di tuutal yenn saay mooy yéen waaye ñooñ diine bu demee ci diine waaye bëgg suukar nag bu dee ci suukar kenn du ko yedd xam nga fu ko yedd mm-hmm. ci saako xorom ñun ci diine la ñu demoon ci cérémonie officielle lu diine la ñu demoon oustaz Mouhamed Mbaye ma nga ca làmb jay xeex du ndam oustaz Mouhamed Mbaye gis nañ ko léegi ci soirée bi ñu koy toroxal du ndam oustaz Mouhamed Mbaye léegi la génne ci ndaw rabin bi du ndam oustaz Mouhamed da ci jàngi lañ dajeeg moom loolooy ndamam ca jàng laa demoon d'accord mais aussi xam nga tey oustaz euh, euh, ki nga àndaloon muy euh, oustaz Modou Fall moom day toog télé di wax naan njiitum réew bi defal na ma li defal na ba tax na xam nga yow génn nga yaa ngi ko mais ñu bëri ñoom jàpp nañ ni kàddu yi nga Euh, boo ko waxee amul sens ñu ne parce que moom day toog di ko bàkkoo ni moom day fréquenté ñooñu. waaw mais lu tax ba du leen fréquenté mais Sénégal luñ bëgg nit day am nitam da koy bëgg président de la république avant président président la ah nit la. bu génnee ci président président mbubb la. solo goo ko di nga ko solo boo ko solee da nga koy wékki. boo ko wékki xam nga lu am solo. buñ fi jugee ngor gi ngeen séq ba àdduna xam ko yàlla na continuer est-ce que yaa ngi dégg. dégg naa bu baax bëgguma kii mooy sama xarit. bu wàccee kat diwaat naa keneen boor bi te kooku avant kooku di toog diwoo ko boor ba loolu laay bañ a man mais président de la république xaritam la ah kay dëgg la parce que man musuma dem palais musuma jokkoo ak président de la république Marème Faye Sall mu ngi ñuy teral yàlla mu ngi koy dogal man boog musuma wax Marème Faye Sall sama soxla musuma kaa bind lettre musuma toog ak moom kon xanaa man libéré wu naa. libéré wu kay. musuma toog ak moom. Mhm. musuma ko bind lettre. Mhm. musuma ko wax soxla te xanaa man siiw naa ci réew mi nag. Mhm. mais dama am logique. mooy man damay enjoy yonent bi. bu ma sañoon lu ëpp lu ma nit di laaj yonent bi lay doon. barki démb dama dajeeg benn kilifa mu nuyu ma. ni ma dama tëdd sama néeg. di déglu fi ngay waxtaanee yonent bi ndax weer woowu la ñu toll muy weeru rajab yonent bi jëli julli. digganteem ak maam eh, eh, nu mu tudd. Eh, digganteem ak yonent yàlla Moussa mun ma dama leen a déglu ba jooy mun ma déglu naa nga wax ci yonent bi ba damaa jooy loolu moo ma daq lu ma am ci àdduna gis nga xam Mouhamed mbay mu tëdd ñu war koo julee di ko dugal bàmmeel bëgguma ñu ne ak xaritoog diw bëgguma ñu ne ndeysaan ak a baax dama bëgg rek xoola bëgguma ñu ne ak am diine dama bëgg ñu ne ak bëgg yonent bi loolu rek te euh, loolu moom mën naa ne oustaz euh, nekkul sax euh, lu ñuy lam-laame. loolu rek wóor na àdduna bi yëpp. Mouhamed Mbaye miy tëdd. Mhm. ku bëgg yonent bi dee na. Mhm. loolu moo ma gënal lu ma am sama àdduna ndax garaat bu dul deñ la. Mhm. mais koo fi président Senghor jaar na fi. mu ngi ci biir suuf. boo demee bàmmeelam doo fa fekk kenn. président Abdou Diouf. dëkk ba mu nekk am na ñu mu romb ko. président Ablaye Wade mu ngi fii ci Ndakaaru kenn demu fa. président bii toog yàlla bu génnee mu génn fi. ci activité am lay nekk. àdduna moo bindoo noonu moo tax lu waaye am boo ca toll la na ko rafetal rek ak lu mën a doon waaye daal bu kenn jël bu kenn jël nguur di ko xeexee loolu ci signe de faiblesse la bokk hmm. oustaz ñu ngi ci li nga xamante moom mooy ay élection lan ngay ñaan yàlla ni hmm. réew boo bëggee mu avancé hmm. doo mer di yàq luñ jot a defar ndax ki toog dimbali woo ko ndax balaa muy defar leneen day réparer loolu temps bi muy réparer loolu jëlaat xaalis da ci def xaalis boobu am na fu mu xajoon boo meree bay mer bul yàq communication amul lu mu mënta dindi ci àdduna bi ci des man ku mën a toog lijjantiwu ma ko damay ñaan rek ki toog yàlla na méngoog réew mi yàlla na yërmande di daw ci xolam bi waaye képp koo xamante ni boo toogee ci réew mii kër Seydil Hadji Malick te Tiwaawan kër Seexul Xadim ca Touba kër Baye Niass ca Kaolack kër Mame Baye Laay fii ci Yoff Canaba Njaasaan doo leen jox cër boo jot réew mi d'accord mais aussi oustaz euh, ku nekk gis na ni euh, jamono ji euh, kër yi ngay tudd noonu askan bi ñu bëri dañ leen a mere parce que ñoom nee nañu coowal yi fi am yépp ci wàllu politique bi jàppal bàyyi tëjum ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ñoom nanguñu cee yëy yàbbi ci dañ cee maan. ma ne la buñ leen meree lu mu leen di wàññi. màggal Tuubaa bu jotee màggal gaa ngi gën a fees gàmmu Tiwaawan mi ngi gën a fees yow di mere ko taalalul kilim fayaloo ko courant takkaloo ko soxna lan la koy wàññi nit ñi bu ñu meree nit ñi nañ leen di woo téléphone di leen ko wax nan la diw dama laa mere pour mu xam ko mais ki nga mere mbaa nga koy saaga ci ginnaaw clavier lu mu koy wàññi buuru jamono du juuyoog nitu yàlla jamonoom mm-hmm. parce que ñoom ñaar ñoo bokk yoon bu ñu jëm mm-hmm. lenn kase mm-hmm. la yonent bi wax ni ñaar ñi bu nu baaxee réew baax bu nu yàqoo réew yàqu président ak njiit ak ak borom xam-xam al umara u wal fuqaha u waaye jikko ak melo duñ benn waaye dama wax ni mag ñi li nu fi def seeni sët a fi des kenn mësu koo def ormal leen rek mooy li am solo leneen lu waaye def day sonal boppam te nag fi may daandale mooy sëriñ si waruñoo toog ci der yi rek sëriñ war naa nekk président de la république ajuma jot mu jiite ji julli waaw ci mim réew war naa nekk président de la république aljuma jot mu génnee palais dem jiite ji julli. mais oustaz est-ce que loolu am ko fi ci gën a yomb ci réew mi ndax dëkku daara la looloo gën a yomb ci réew mi ndax dëkku daara la lu tax nga ne ma du yomb ci réew mi ki nga tudd léegi di Ousmane Sonko ay alxuraan yi wax kan moo ko xam xale yaa ngi ni bëgg ko kooku mënta nekk palais tàkku tisbaar jot juma mu woote grande mosquée de Dakar ni président maa ngi ni imam maa ngi lay ñaan tey man la président. damaa war a jiite julli Ousmane Sonko taxaw ci kanam ta kabaar julli mënta ne déggoo ko muy wax alxuraan Modou Lo déggoo mu wax aaya yoo xamul bu bëri jotee mu dem bëri ji mm-hmm. keneen noonu keneen noonu keneen noonu mais foofu la réew mi toll këru daara la mm-hmm. kon ñi fi nekk di ay borom xam-xam war nañoo mën a jiite réew mi mm-hmm. Oustaz Mouhamed Mbaye warta mën a nekk ministre ah, signé ba pare génn dem tagg yonent bi dellu siwaat ci ministère am maa nekk député ah mais ñi fa nekk xam nga leen fa indi ak yaa fi mën képp fii ñi fi gis ñëpp ñu nekk ay député ñi ci ëpp rëy làmmeñ lañ demee député ñii saagakat lañu woon ñii taxawaalukat yu nekkoon Europe lañu woon ñii topp ci ginnaaw président de la république ñu boole leen ci biir liste mais néew na koo xamante ne xam-xam moo ko yóbbu foofu